zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun fa ida xudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtaxu min fadlillah waskuru llaha kasiran laallakum tuflixuun wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa tarakuuka qaa'ima xul maa inda allahi xayru min allahwi wa min attijaara wallahu xayru raziqin sadaqallahu alazim mbokk juli yi mu ngi leen di nuyu ci seen télévision Go Dakar TV ci àjjuma ju sell ji di leen wax juma mubaarak comme nin ko baaxoo di waxe rek di ànd ak yéen ci waxtaanu àjjuma tey nag ñu bëgg a jàngale rek fàttali fàttali suñu bopp ak bépp jullit ci lu am solo muy xutba àjjuma xutba mooy serment li tax ñu koy def bisub àjjuma mooy dañu bëgg jullit bi lépp lu soxal diineem ci actualité bu muy dund ñu laay biire ko ci ci àjjuma ji ba buy dem sax yóbbaale lu mu xamul woon mbokk yi lan mooy xutba xutba dafa am solo ba am na boroom xam-xam yu ni aaya bi digle jumaa moo digle déglu xutba bi ndax daf ni suñu wootee mooy nodd gi isa nuudee salaat mini min yawmil jumaa mu ni fasaw ila zikrillah dem leen ci tudd gënuy tudd yàlla looloo tax imaam bi bu koy def ñu ni na commencé sant suñu boroom moo tax juma booy xutba ñu ni la commencé la nga ni alhamdulillah ñu ni xutba bi yonent bi salaa salaam njëkk a xutba dafa yéeg min baram rek ni inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa natuubu ilayhi wa nauzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu la wa man yudlil fala haadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ñu koy barkeeloo xutba dafa am solo ba ngiru imaam Malik sax moom nee na bu ko imaam bi commencé def boo ñëwee bul sax julli ñaari rakka toogal nga déglu imam bi yeneen ngir yi nag ñoo ni bu ko imaam di def te nga ñëw ci jàkka ji mun nga julli ñaari rakka waaye borom xam-xam yi dañ ni wuute gënu wuute ci seeni école yërmandeel rek pour xeet wi kiy toog di déglu xutbab imaam bi mun na cee jànge ci diineem lu mu xamul woon dara bañ ko cee rëcc ki am xam-xamu xam na li imaam bii xutbakat dugg na ci jàkka ji moom tamit julli na ñaar rakka am na yiw am ngir yu ni addis bu wér yonent bi salaam nee na bu imaam bii xutba bul wax rawatina nag waxtaanu àdduna am ngir yu ni bul fa wax boo waxee ki la naan noppil sax ñàkk na jumaa rawatina nag yow miy wax mbokk yi xutbab àjjuma imaam bi koy def dañu bëgg ginnaaw bu sante suñu boroom commencé ko alhamdulillah ñu ni na seet actualité lu xew ci dëkk bi mu wax ci jullit yi lu ci seen diine wax am ñu ni ci arab rek lañ ko war a def benn école bu nuy wax ngiru imam Malik bokk na ci ñi wax loolu ñoom li ñu tax ñu ni xutba ci araab rek lañ ko war a def mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul xutba ci beneen langue bu dul langu araab waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ña mu doon jiite ca Makka ak Medina ay araab lañu woon la mu doon wax xam nañ ko ndax moom lañ nàmp moom mi koy wax tamit xam na ko ndax moom la nàmp ñun nag nàmpuñu ko waaye dañ koo jàng waaye kon suñ ko jàngee ba am luñ ci war a wax jullit bi bu boobaa nag nañ ko ko wax am ñu ni nañ ko ba ci beneen lakk wu dul arab ndax amul benn yonent bu yàlla yónni ci benn lakk bu dul lakk wu nga xamante ni moom la saw xeet nàmp yow nga xam ko ñoom ñu xam ko te moom nag dañ ko yónni pour ñëpp waaye wuute googu ci am nag jarul ñu ciy polémique ba di ci xaajaloo boo ko defee ci arab rek baax na boo ko defee ci arab ak weneen lakk yitam ba tey wér na baax na li ëpp sax ci jamono ñu ngi koy def te ay boroom xam-xam lañu ma ñaanal ci suñu baayu daara di jaay suñu sëriñ royuwaay la muy Cheikh Ahmad Rifaa'i Mbàkke mu ngi ciy def liggéey bu am solo néew na ku julli ci ñoom jumaa te doo am loo yóbbaale boo ko yóbbaalewul ci sa diine sax yóbbaale ko ci sa àdduna rawatina nag ñi nga xamante ni dañuy boole ñaar yépp xutba boobu nag dañu bëgg imaam bi koy def mu taxaw am ñu ni kenn moo mus a xutba moo njëkk xutba sax toog def ko ñu ni Muawiyatu bnu Abi Sufyaan la ñu ni ndax Muawiya dafa am dafa nekkoon nitu yaram bi mu demee ba jël âge mënul xutba di taxaw muy toog di xutba waaye nag loolu itam du lu ñuy yaxal ni rek imaam bi bu demee ba nekk mag rek nay toog di xutba ñu ni bëgg nañu bu dee ngiru imaam Malik la mu yor benn kaan mooy yat woowu sukkandiku ci bu amul nag yat woowu tamit yàqul ci xutbaam dara dañ ñu xutba nag lu mu gudd gudd gudd gudd lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt na toll ni taayab ñaareel maanaam booy julli taaya bi nga xamante ni moom moo mujj ci ñeenteelu ràkka ba bu dee jullig ñeenti ràkka la ñu attahiyaatu lillahi boobu ngay wax ba ci salaatu ibrahimiya ñu ni lu gàtt gàtt gàtt xutba na tool noonu ñu ni bëgg nañ kiy xutba muy indi ay verset coranique mais nag bu mu nekk nag yu gudd a na jël rek li mu soxla wala ab saar wala boog addiisu yonent bi salaa sallam comme bu doon tam xarit la ndax moom lañ dëkkmal imam bi di xutba ni ah tam xarit kat moom la ñuy tuddee ashura mooy le dixième jour ci weer wu ñuy wax muharram weer woowu tamit mu ngi bokk ci ñeenti weer yi nga xamante ne avant l'islam kenn daawu ci xeex weeri jàmm la ay weer yu nu wormaal la ñu ni itam bëgg nañ moom imaam bi buy xutba mu bàyyi waale xel ñi muy waxal ndax yonent bi salaa daf ni xaati bin naas ala qadri uqulihim waxal doom aadama yi seen capacité d' intellectuel fi mu yem ak seenum njàng mu nga wax leen loolu bëgguñu imaam bi mu ñëw di wax ak ay xale yoo xamante ni ay intellectuel lañ mu leen di wax par exemple la crise des années trente wala mu naa leen fascisme ak nazisme kat nangam ak nangam déedéet dañu bëgg actualité bi fi nekk nga ni xale yi ku am dix-huit ans kat sa pappa doon la jox chaque jour mille francs pour nga jàngi école bu la neexee mille francs yooyu nga wàññi ci cent francs bu nekk bu weeru kooree soo wooree ba pare au lee sa papa di la génneel asaka yi muurum koor nga génni mun nga koo génneel sa bopp même bu dee yow sët xaalisu jàngi la mun nañ wax sax xale bi ni ko waa yow connexion yi ngeen di jënd di ko dajale ci seen xaalis leen si papa di jox mun ngeen cee créer benn zakat house yéen collégiens yi seen weccit comme que yéen a ngi natt ci seen biir di jënd ay kol ñu góor ñi di bokk daayira pourquoi pas mun leen créer benn zakat créer ko bu weeru koor jotee bu ngeen ko dajalee ba pare ngeen génne seen azaka muuru koor mun na nekk pourquoi pas sax yéen ngeen créer julli it ci école bi ndax mën naa nekk ñu ni xutba yooyu nag yooyu lañ bëgg ci imaam ñu ni bëgg na tamit lu mu wax nag mu indi ci référence par exemple li ñuy tuddee citation boo nee maa ngi wax ci benn boroom xam-xam boo xamante ni mu ngi tuddoon Auguste Comte ci xutba bi am na benn boroom xam-xam bu mag bu musoon xut ba ci Sadio Mané ajjuma mu ba ci xam nga lu tax mooy ab jeunesse la doon waxal puisque mën wax na leen ni leen bu ko neexoon mu rëy bu ko neexoon mu def nangam mais sport lislaam daf ni am na ñu ni yonent bi sallallahu alayhi moo wax mu ni jàngal leen seen doom lance jàngal leen leen natation jàngal leen leen daw jàngal leen leen leneen war fas am ñang ñu ni sport foofu la duggee ci lislaam looloo tax ngeen gis benn ay ay ay république islamique yoo xamante ni dañuy football dañuy def yeneen xeeti sport yëpp dañ koy def ñun nag imaam bi warul nekk tamit koo xamante ni actualité daf koy raw maanaam àjjuma jot na imaam bi xamul li xew ci dëkk bi loolu soppuñu ko ci xutba bëgg nañ tamit kiy xutba muy wax wax ju tekkeeku maanaam nga bañ di junju mooy bul junj ay wax waaye bëgg nañ nag looy wax nag ah nga ñaaxaale ci jullit yi ragal yàlla suñu maam wala bàyyi la ci ñun sax yàlla na yàlla yërëm ko imaam Maodo Sylla fu mu musaana xutba rek ndeysaan da nga dégg mu ni ragal yàlla topp yàlla ñu ni bëgg nañ tamit ci imaam bi xutba mu toog benn toogaay toogaay boo xamante ni nag nam may jullit yi ñu ñaan ci ñu ni wërta nekk nag toogaay bu yàgg-yàgg ba nit ñi seen xel xaw a génn tuuti ci waxtaan wi wala seen xel dem feneen ñu na ci ñaan ñaanal ci jullit yi ñaanal ci réew yi bëgg nañ tamit ci imaam buy xutba mu ñaanal jullit yi jàmm képp ku noonoo jullit yi ba nar leen indil musiba mu ñaanal leen yàlla sooyal seen pexe looloo tax yenn saay nga gis ci yenn réew yi bu ñuy xutba ñuy ñaanal waa Palestine bëgg nañ tamit bu fekkente ni nii mbas dafa am wala benn fléau sociaux yi yenn am ci bëgg nañ nga ciy ñaan nga di ci wax di ci ñaan bëgg nañ nag ci kii xutba buy jeexal xutbaam mu ni inna allaha ya'muru bil adl wal ihsaan wa iitaa'i zil qurba wa yanha anil fahshaa'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruun maanaam yàlla day digle lu baax bëgg ko di tere lu ñaaw bañ ko dafa bëgg tamit kuy rafetal rafetal ci say jigéen ñaale te nga bàyyi bew te nga bàyyi am foli de grandeur mooy bëx yi yàlla buggul lu ñaaw waaye nag daf leen di digal di mettre seen attention ci ngeen bañ a def lu ñaaw wala ngeen koy xalaat wala ngeen fekke fu koy defee mu ne su ngeen teetee lii nag moytu lii lépp nag mun na am ngeen texe fi may jeexale nag sama waxtaan mooy wax naa imaam bi liñ sopp ci moom waaye ki toog nag di déglu xutba lan lan sopp ci moom dañu bëgg d'abord yow mii déglu xutba bu fekkee da nekk ci première sàppe yi nga jige imaam bëgguñu ngay ji xamtiku di téen ndax ñi ci seen ginnaaw boo moytul am koo gêné sàppe yi ci kanam ñoom dañu bëgg bu fekkee ñoom mënuñoo gis imaam mënuñu koo xool ñoom seen bët fi mu nekk rek nañ xool foofu bu fekkee nag mun nga incliné wu tuuti pour xool imaam loolu dara nekku ci mais nekk ci sàppe yi yi ci kanam ba pare bëgg a yu xamti def nii teen wala ngay samp sa ñaari tànk boo moytuwul am ko leen eh sa waay toogal waay ndax nit ñëpp yamuñu jikko bëgg nañ tamit nga toog jublu penku bëgg nañ tamit sa ñaari bët baña a ko ci xar kanamu imaam bi maanaam ngay xool moom muy wax sàppe yi féete ginnaaw nag ba ca ginnaaw ginnaaw ñu ci ñoom lañ sopp loolu bëgg nañ tamit bu imaam di xutba lépp loo yoroon bàyyi ko même bu dee jàng alxuraan sax tegal bu dee kurus tegal yow déglul imaam bi rek bëgguñu ngay wax rawatina nag waxi àdduna ci jàngale rek ci jàngale mus naa dend ak ñaari ñaari xale imaam bii xutba kenn ki dafa toog ba ci yàgg rek mu ni moroom mi mais mat su démb bi nan la mujj kan moo gañe rek ñu commencé nag waxtaan léegi génn nañ ci jumaa ji ñu nga mat suba man mi dendoon ak ñoom am na ngir yu ni su ma fa nekkoon sax naa leen waa saa waay yéen tamit xam nga jumaa ji ngeen imaam bi xutba ngeen naa match bi man rek man ñàkk naa jumaa ndax tees bi daf ni imaam bi buy xutba bu kenn wax rawatina waxu àdduna kiy wax sax kila ni noppil sax moom jumaam yàqu na bëgg nañ tamit yow mii déglu xutba yow miy déglu xutba bu imaam doon xutba par exemple nga jàng imaam jël benn addis wala mu doon nettali benn xew-xew bu amoon mu daan ni waaye man de fàtte naa sax euh, euh, waaye dimbali leen ma waay euh, num ko waxeeti sax bu boobaa ni nga doo woon sa nin la maye woon nga sàbbaal imaam ci julli noonu lan la maye nga ni ah bayit la boo xamante ni nii kat par exemple suñ maam Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba moom moo ko waxoon moo ni woon kitaabun karimun rek imam bu boobaa da nga koy indiwaat laa yu mallu simaahu kenn du tàyyi ci dégg alxuraan mu ni waaw këñ foofu laa doon ñëw gis nga lislaam boo ko xamee rek dafay mel que rek benn loo jàngoon di ko pratiquer di ko appliquer comme ni nga ko war a defee bëgg nañ ci kiy déglu xutba bu amul benn ñaan xamul benn ñaan maanaam mënul rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaban naar mënu ko te imaam bi toog na tàllal ñaari loxoom di ñaan moom na ñaan ci lakk yum digg bu fekkente ni sara xulle la na ñaan ci sara xulle bu fekkente ni ci français la gën a jekku sax français la gën a jekku na wax ô oh, Seigneur hmm, je vous nang na ñaan même bu dee sax doomi olof la wala jeneen doom mi jekkul olof pour ñaan ci na ñaan ci français wala anglais ñu ni imaam di ñaan nag àndal moom di ñaan boo mënul nag xamoo nu ñuy ñaane bu boobaa yow del saxoo di wax amin mooy bi imaam noppee bëgg nañ timit yow mii déglu xutba saa yoo déggee imaam ni allahumma rek waxal amiin ndax imaam li muy ñaan naan allahumma yow danga nga cee bokk te bu jàngoon fatiha ci julli ba pare wax xayril maxduubi alayhim wala daalin da nga naan amiin ñu ni kon suy ñaan ci xutba timit del wax saay waxee allahumma rek bu daaneelee waxal amiin mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci seen télévision Go Dakar TV di leen xaar ci 959 78 959 33 03 ku am laaj bu muy laaj mun na ko bind ci WhatsApp bi mun na yónnee tamit vocal mun ci jotee rek man ak sama technicien. ak sunu kilifa Abdel Malik ñu koy wax tamit jumaa mu baarak yàlla barkel yàlla barkeel fin de semaine indi yiw ak jàmm ci début semaine waaquulu xawli haza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li saa'iril muslimin yaghfirillahu lana wa lakum